talaata bii di ñëw nga xam ni day tolloog juróom-ñaari fan ci weeru novembre bi ñu nekk dañuy décréter ci réew mi yépp école morte. kuréel bu boot syndicat wu jàngalekat yi di sayam SAEMS ak CUSEMS fas yéenewul teggi loxoom benn yoon ngir nguurum senegal jëmmal yenn ci poñ yu nekkoon ci protocole d'accord yi. premier ministre boobu dañ koy bind bataaxal boo xam ni point yooyu yépp daañ ko ci pointé wax lan moo ci sooxe. dañu décider itam ñun suñu syndicat yi ni ren au lieu que kenn ku nekk di jaar sa boor di déposer préavis de grève ren dañuy bokk déposer benn préavis. yii les syndicalistes fas yéene rek def lu ñu mën ngir nguurum Sénégal mën a bàyyi xel ci poñ yi ñu xaatimoon te ba tey jëfewuñu ko. suñu ay base seen yaram tàng na ndax problème yi nga xam yépp moom lañu fi soulever ba ñoom seen bokk ñu commencé di ñu déborder sur les flancs. di décréter ay plan d'action locaux mais ñun dañu bëgg alerter nguur gi mu jël ay responsabilités balaa ñuy dugg ci mbir ñu jàpp rek ni que ni journée école morte bile da di ab alerte te bu nguuru Sénégal jëlul benn dogal l'école bi dana tàggate mberen loolu nag c'est pour montrer au gouvernement suñu détermination pour que mu xam ni jàmm ji. mooy mu dem ci régler problème yi nga xam ni posé nañ ko. ñu nekk ci ay waxtu yoo xam ne ni njàng meeg njàngale mi bëri na ay rëq-rëq biir Sénégal bii mbootaay bu jàngalekat yi di ñaan rek nguurum Sénégal mu jël ay dogal ngir ñu mën a am lekkool bu mucc ayib.